you voilà ñu tëjee ak ki nga xamante ni rek moom mooy Tange Tandian clos le débat sur l'affaire Serigne Abdou Aziz Sy ñu seetaan ko daal di ñëwaat. suñu première question mooy sa diggante ak Habib Cheikh Habib. problème bi nga xamante ne amoon na nga génn jéggalu waaye tijaani nee nañ même boo génnee jéggalu ñoom duñ la baal dinañu xeexal yow ci baatin ak ci zaahir waaw awma problème ak kenn awma problème ak tijaan awma problème ak murit awma problème ak layen awma problème ak xaadar ab taalibe la bu xeebu di jaamu yàlla di liggéey nag je crois que awma problème ak kenn sëñ Habib kilifa la ndaxte waajuram ji góor di sëriñ Abdul Aziz Si Dabaax rabiyallahu taala yaakaar naa ni ci xol laa ko def ndaxte saa yu ma koy seetaan wala di ko déglu damay gis sama wasila ci kanamam muy sëriñ Saliou Mbacke rabbi yàllaahu muy sëriñ Abdoul Aziz Sy Dabakh yaakaar naa ni sëriñ Habib Sy sëriñ Babacar Sy di Moyes bu sëriñ Abdoul Aziz Sy Dabakh muy nit ku ma fonk nit koo xamante ni dama koy déglu di gën a jóge sama borom yaakaar naa ni tey njool fuuta foofa ca Tiwaawan moom it nit ku ma xam la saa yu ma demee gis ko di ko déglu kon awma ma ak benn doomu aadama ndaxte soo ma nee tijaan yi man est que tijaan yi dañ ma appelé ci tijaan yi ndaxte yaakaar naa ni Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul Alaaji Malick si fa ñu bokkee ca yàlla la ñoom ñëpp ci yàlla lañ ñuy yóbbu man nag dama doon taalibe buy liggéey te musuma wax ak benn sëriñ nag juddu naa fi ma war a juddoo yaroo fi ma war a juddoo yaroo fi ma war a yaroo di moyes màggee fi ma war a màggee ñu yar ma ci diine Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa yàlla nak moy dogal ma tan ben branche jokku ci pour gëna joggé sama borom muy mouridisme waye yaakaar naa ni yàlla suma bolé ak seigne saliw non la ma yàlla ak njabootu alhadji malik si allah taala ndax tey li ci ay xarit ñi bok ci branche mawdo Maodo ni kenn mënu len compter man pas pass ak cofeel ji ma am ci njabootu mawdo kenn mënu len compter kon xamadiwma wala yaradiku wala am fit ba kilifa diine wax ci diine. wax ci yàlla man may taal micro wala di taal caméra di am lu ma ciy wax ku ci wax ci diine rek yaakaar naa ne ndigal rek lay woyee waaye nag dafa fekk ba may wax citoyen laa waxal ak politicien xëy na nag ku mu neex nga jël wax bi yóbbu ko feneen waaye la ca waroon rek def naa ko parce que ay taalibe lañu parce que sukk du la teer yóbbu say oom ak lu mu mënta demee am na benn cër ndaxte sa waajur ju góor sax di nga xuloog moom mu wax d'accord nga mer mu mer mais yow yaay dellu siwaat tuub jéggalu kon noonu laa ko defee ret jàpp ne sama baay moo wax d'accordum ak moom bi ma d'accordul ak moom nag xëy na xol ak fugg yóbbaale ma waaye ba ma noppee dama def li jullit war a def li doom war a def ma jéggaluwaat mi ngi si sama ginnaaw lu waaye nag ne ci zaahir ak baatin yàlla mi ngi si suñu kanam bàyyi nañu lépp ci suñu loxo suñu borom lu waay mënta dafa fekk suñu borom namm ko ci yow suñu borom su nammul dara ci yow ret mindeef mënul yow ci yow dara muy zaahir nag muy ndagam suñu borom namm ko ci yow kenn mënu ci dara li am solo nag maanaam mooy wékkuwaat ci suñu borom wasalaam loolu nga am ci loo xam ne moom ngay leeral ci problème voilà ñoo ko seetaanandoo ginnaaw polémique bi nga xamante ni rek doxoon na diggante moom ak ki nga xamante ni rek mooy Cheikh Habib Sy ci kàddu yi nga xamante ni yëkkati woon na ko am ñenn ñoo xam ne rafetlu wuñ ko génn na baalu àq ñi nga xamante ni rek ñoom ñooy tijaan ñi nga xamante ni euh, mbir mi métti na leen woon yaakaar naa ni dégg ngeen ko ci biir vidéo bi nee na amul benn problème ak ñi nga xamante ni rek ñoom ñooy tijaan yi kenn ëppalewu ko ci li nga xamante ni rek rek moom mooy tarixa cheikh donte murid la donte ci Serigne Saliou Mbacké la jokk ba muy wax tamit waxul woon en tant que Habib Sy mi nga xamante ni Serigne la doomu dabaax la mais da doon wax en tant ki nga xamante ni rek moom citoyen la àddu ci li nga xamante ni rek moom mooy wàllu politique d'accordul ak moom ci li nga xamante ni rek noonu la communiqué kooku la doon waxal jéggalu na mbir mi mu ngi ci ginnaawam te yaakaar naa ne nag nit ku dul juum amul yàlla sunu borom képp moom moo dul juum et que grandeur weesuwul nga djoum ba nopi nangou ne yow mi juum nga daldi di yakarna nat mbir mi jeex ndax yakarna ni kuko deg ci communication nga xamne manam euh, rectifier na bopam selon nit ñi nga xamanteni rek ñoo ngi doon critiquer boba ami chers fidèles internautes lii lañ leen lon tay ci seen émission scandale du jour di leen jox dig dajé inshallah demain même heure bonne suite de notre programme merci